croisés. recours croisés voilà les recours croisés au conseil constitutionnel. Euh, j'ai bien aimé cette expression là alors Pape bi euh, parmi ces recours là bi bëgg bi ma bëgg a njëkk a aborder mooy euh, bi concerne le cas Karim Wade démb doon nañ ci wax fii. niveau d' information bi ci amoon mooy li nga xam ne mooy Karim Wade dañu gis turam sur les listes électorales en France. Mhm. mais là depuis depuis hier Karim Wade wax na ne son mandataire dem na conseil constitutionnel jox na ko la preuve que ni moom il a renoncé à sa nationalité française euh, depuis euh, très longtemps. tey ci suba sax am na fu ñu wane ne euh, l'Élysée je crois wax na ne Karim Wade delloo nañ ko en fait delloo na France nationalité am est-ce que Pape Sané cela veut dire que ni ce débat-là est clos et définitivement clos non Moustapha ce débat ne peut pas être au contraire je crois que le décret bi nga xam ne moom la ñu génne sur le site de l'Élysée mm -hmm. euh, du gouvernement français man dama jàpp ni que dafa yokk xar mi karaw xar mi karaw benn date bi nga xam ne moom la décret bi génn le 14 barki Demba Ndiaye ah oui mais c'est c'est sujet à polémique pourquoi depuis X temps ce décret là génnewuñu ko mooy man mooy premier jàngat bi ma ciy jàngat grosso modo rek suñu bëggee suñu mënee résumer de manière très vulgaire euh, dama naan c'est une implication euh, de l'État français dans le processus électoral sénégalais parce que wax fa dëgg yàlla ca période bi ñu ko génnee période boobu c'est suspicieux waaw mooy benn ñaar mais mu am la nga xam ne ci biir code euh, code civil France ci wàllu nationalité moom Karim dans ce dans le cas d'espèce bi mu toll am na ñu naan du double nationalité la am euh, il bénéficie il bénéficie d'une not nationalité mooy xam nga rek Sénégal ñun on aime le sémantique mm-hmm, mm-hmm. alors toujours est-il mooy Karim Wade ñaari nationalité la yor mm-hmm. te France fële dañ na yow bu dee yow kenn si say waajur tubaab la français la française la soo namee renoncer sa nationalité juróom benn weer balaa ngaa am fukki at ak juróom-ñett ngay bind ne leen man bugguma nekk français mooy maanaam du ma du dem dafi service militaire avant ngay am 18 avant ngay am 18 ans juróom benn weer mhm. soo ko deful ilaa il faut nga xaar ba weesu lu toll ci juróom-ñetti weer walla at Mhm. bu weesoo juróom fukki at ak juróom-ñett yi. d'accord cest au delà de 18 ans il faut nga xaar 12 mois encore. Mhm. pour mun a renoncer c'est-à-dire mois yi mooy il faut que nga def sa service militaire ba pare. waaw mais ci kaawu toujours ci kaawu Karim bi moom renoncé wul ci période boobu. Mhm. période bi mu renoncé ba tey ji waxaguñu date exacte bi nga xam ne moom la dugalee cette demande de renonciation à Euh, à la à la à la nationalité. d'accord mais 2018. 2018 ba tey décret bi di soog a génn. ils ont parlé de ba tey décret bi di soog a génn. ah je sais xaw ma de mais en tout cas wax nañ 2018. mais léegi euh, par rapport ak li ma wax nii ci code civil France. après c'est une procédure qui prend du temps aussi la bas mhm. mhm. waaw d'accord mais li ma wax ci ci code civil France bi ba tey jii ñuy wax nii. Mhm. Euh, le code de la nationalité française dafa ne. les mesures yi nga xam ne moom la ñuy jël concernant la nationalité ne sont susceptibles ne sont pas frappées de rétroactivité mm. mooy maanaam suñ suñ su su su suñu la sa nationalité dafa war a méngóog jamono ji nga xam ne moom laa wax mooy période bii nga xam ne ci juróom benn weer yi avant muy am 18 ans la mm-hmm. wala fukki weer ak ñaar après mu am 18 mm. mais buñ ko boo ko defee après est-ce que mbir mi c'est rétroactif boobaa après dinaa bàyyi ibrahim Ibrahima tonam mm-hmm. mais ci code de la nationalité française dañ ne non c'est pas rétroactif mm-hmm. mooy maanaam mënoo ko demander mm-hmm. ñu dindi ko mënul nekk d'accord waaw léegi nag man li ma bëgg a xam mooy mais mais euh, Pape bala ngay sori man li ma gis euh, ci euh, ci réseaux sociaux yi dama cee gis la date du 17 janvier 2024 waaw j'ai pas compris cette date là waaw moom la mooy date bi nga xam ne moom la ñu publier. waaw le décret là sur le site du gouvernement français. 2024. waaw mu ngi barki démb. c'est janvier c'est ah c'est hier. c'est hier man c'est ce que j'ai vu. ok xaw ma nag quest que ça vaut parce que franchement bëgg ma wax lu ma xamul. c'est aujourd'hui 17 c'est c'est aujourd'hui. am na am na ñu ne affaire bi démb lañ ko jël le 16. waaw. waaw moo tax ma ne léegi. mais le 16 fekk na Karim Wade déposé. déposé ba pare candidature ba ñu ba ñu autorisé ko ne naa bokk. foofu nag laa bëggoon ñëw. mooy que moom date bi nga xam ne moom la décret bi génne hmm. moo tax man ne sànq sama njëlbeen wax. Hmm. c' est une immixtion de l' état français dans les hmm. affaires politiques du Sénégal. waaw très sincèrement parce que mënuñu xaar ba Karim Wade déposé. ba ñu soulever débat bi. avec acuité Thierno Ouleye Thierno Alassane Sall topp ko ci topp ko ci topp ko ci topp ko ci. donc il a fallu à la minute. ñu ne kon nañuy génne décret bi. mooy mais mais est-ce que euh, ça c'est une de de journaliste hein? mais est-ce que le document là le décret ñuy wax ak date bi ñu ci def est-ce lu authentique la. Mm-hmm. question la. parce qu'on ne pas. en tout cas Karim ci boppam. oui moo ko publier sur sa page Twitter. Karim Wade waaw. d'accord mu ngi mu ngi mu ngi nii mu ngi nii. non non si c'est Kariwari qui l'a publié. te am na droit wax ci nag moo ko publié sur sa page Twitter. d'accord euh, parce que man li ma gis Kariwari wax ko mooy mi ngi remercier Thierno Alassane sal mi ko xamal ne <laughs> il est inscrit sur les listes électorales en France alors ko mosu fa voté ça euh, Kariwari wax na ko. mais on peut être inscrit sur les listes sans voter. sans voter mu ngi nii et puis mieux c'est sur le journal officiel de la République française. Hmm. mu ngi nii. date date bi lan la ministre de l' intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance. Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner une visi en visibilité et agissant pour le compte du très très peu courageux Premier ministre Amadou Ba, spécialiste des coups bas, se termine enfin. Euh, Amadou Ba, dont le manque de témérité face à la confrontation est désormais évident doit cesser ses manœuvres déloyales malgré les informations que j'ai reçues sur l'acquisition d'autres nationalités par certains candidats j'ai décidé de ne déposer aucun retour de recours devant le Conseil constitutionnel ma le Sénégal doit décider dans une élection présidentielle ouverte et le journal officiel de la République française mu ngi nii en date du euh, tout voilà du 17 janvier 2024 euh, numéro 13. ah loolu da <laughs> mu ngi nii. loolu laa gisoon mais mais mais 17 janvier li nga la waaw mu ngi nii. loolu li nga lire dafa am lu ma ci dégg Pape xam naa après dina ci waxtaan mooy euh, finalement Karim il dit que c' Ba qui manipule euh, Thierno Alassane Sall. si j'ai bien entendu. Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw Thierno Alassane Sall parce que dafa ko ragal. ma yokk une précision. oui aywa décret du 16 janvier 2024. Mhm. de por démb portant naturalisation réintégration mention d'enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité par leurs parents francisation mhm. de nom et de prénom et libération demande de changement de nom euh, arrêt de nationalité xaw ma nu ñu koy waxte waaw mu ngoog donc c' est naturalisa naturalisation et réintégration dans le journal officiel du 17 janvier 2024 si la. ma ma sincèrement sincèrement sama conviction personnelle je doute de l'authenticité de ah, ce document. ma c'est Karim Wade publié. moi je dis que mais mais oui mais mais ça peut de bonne guerre parce que man aussi. ça je suis habité oh. par le même doute ah. parce que ay dates yi ñuy wax ni c'est démb ak tey. démb ak tey alors que le kan kan Wade de candidature war na mat léegi xanaa ay. war na mat xanaa un mois. un mois. donc su fekkee ne Karim Wade démb ak démb am décret de révocation de sa nationalité bon de renonciation euh, à sa nationalité. Mhm. tey lañ ko publier au journal parce que li mu wone fii mooy 17. 17 janvier 17 janvier 2024. oui loolu c'est mhm. loolu mais aussi ce que Pape disait c'est-à-dire day day nuru genre émission mhm. de la France dans les affaires intérieures dans les affaires politiques intérieures du Sénégal. Oui. ce qui n'est quand même pas admissible. Mhm. mais au-delà man vraiment man li euh, man lii moom dafa xaw a dafa dafa xaw a bett tuuti. parce que les les y a de quoi hein? les recours croisés là yi ñuy def nii. Mhm. man en 2019 ça je je la je l'avais pas ko woon. man li li ma xamoon daal mooy des candidats des on ont candidaté. Mm un dossier dossier bi. Euh, am na lu ci valide am na lu ci validul mhm. ils ont un délai pour déposer un recours devant une commission technique instaurée par le conseil constitutionnel. Mhm. léegi nag après nag la la le conseil constitutionnel publie une liste définitive. oui donc, et là il pa et là les recours c'était leur propre candidature. voilà cest dire que man man man c'est mais mais là c'est un droit à la délation. oui je dis li mu déposé baaxul. parce que c'est euh, en fait euh, Thierno Alassane dit que Karim Wade. comment dirais-je. Euh, à la double nationalité. voilà il a a moom il fait un recours contre Bassirou Diomaye Faye. fay bon donc tu vas m'aider. Bassirou Diomaye Faye euh, ensuite Cheikh Tidiane Dièye. ak Cheikh Tidiane Dièye waaw. ak euh, Aly Ngouille Ndiaye <coughs> ak euh, Mouhamed Boun Abdallah Dionne. pour lan appartenance à une entité politique dissoute. appartenance à une entité politique dissoute maanaam dafa jàpp ne ñoom comme seen parti dañ ko <laughs> dañ ko dissoudre. amuñ droit nekk candidat. Euh, boole na ci ne investiture par une coalition légalement constituée. waaw ak production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel. voilà coalition irrégulièrement constituée non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a exactement. donc euh, man vraiment je comme disait faut Camus je tombe des nues quoi. <laughs> il y a de quoi lu c'est confus c'est mm. confus c'est un peu c'est, je sais pas est loolu c'est issu du dernier dialogue politique wala xam nga politiciens yi aussi tu des fois tu comprends pas. Mm-hmm. dañuy dañuy tëju ci benn salle. d' accord ci benn d' accord ci benn affaire ensuite affaire bi Euh, ne dem ba nekk nekk nekk dans la loi électorale. Mhm. ñu xëy benn jour ensuite léegi ñii di conteste fii ñii di conteste jaar fële. Mhm. après fekk le citoyen moom finalement c' est lui qui est envariné quoi. oui moom il a été roulé dans la dans la farine sans le savoir. oui de Thierno dinaa ñëwaat léegi ci le cas Karim bu taxawee si si euh, recours Amadou bay yi. contre candidature yu ma tudd sànq. Mhm. Euh, Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye Aly Ngouille Ndiaye Mouhamed Boun Abdallah ak quatre éléments yi nga xam ne moom la teg ci taabal ji est ce que yii c' est défendable devant le appartenance à un parti dissous euh, coalition irrégulièrement constituée et cetera et cetera non loolu moom tout dépend de de de dans la loi électorale encore mmh. fois je je man je, je voulais vraiment être prudent sur ça mmh. parce que la euh, réforme euh, euh à partir du dialogue mm-hmm. xam nga ñoom ci lan lañ déggoo mën am dañoo déggoo ci yii après ñu dugal ko foofu bon ya a y' a euh, en ce moment peut être que les les les les esprits étaient focus sur autre chose. que ba ba ba ñu jàllale lii. Mhm. mais su fekkee ne maintenant su fekkee ne si la si c' est la loi électorale qui parce que Thierno Alassane quand même. Mhm. tu le connais je le connais. xam nañ ne moom c' est quelqu' un qui. du ab caaxaankat voilà du du caaxaankat quoi. bu duggee ci benn affaire rek bay contester. Euh, la nationalité bien la bay bay bay bay bay euh, ou la nationalité exclusive de Karim Wade rek. Mhm. c'est que daa am daa daa am fu ko teg mais il peut se de bonne foi aussi. waaw effectivement. c'est un être humain il peut se de bonne foi. Mhm. mais à son niveau de responsabilité ak euh, bon peut-être que seen parti bi ni mu ak intellectuel yi ma fay gis ak yooyu. Mhm. je pense pas que que Thierno. di introduire des recours comme ça à la à la légère. donc vraiment. en tout cas allez-y. Paa Assane y a am na lu presse bi génne je pense en disant que le 26 août 2020. waaw euh, que Karim aurait renouvelé son passeport français à Doha. Mm -hmm. consulat ba. Mm -hmm. ça veut dire que am na am kenn ko waxul dëgg. la presse n'a pas dit la vérité une partie la presse. ou bien euh, monsieur Wade euh, mu baal ñu. mais mais mais c'est-à-dire mais mais aussi. passeport ak nationalité aussi c'est pas la même chose. non non non mais mais c'est-à-dire que c'est mhm. il est né il né d'une française mhm. mais mais lu mu ci mën ci doon moom nationalité daf ko daf ko subir. demandé wu ko. voilà ah, c'est ça c'est bon à préciser. exactement et puis y a y a une chose c'est-à-dire que ce qui est grave dans cette histoire là. Euh, dafa am loo xam ne ci ci ci ci ci ci ñi dëkk France. Mm-hmm. mu capital lool. Mm-hmm. laaj leen ko ñiy dem def enquête pour jël nationalité française on pose la question est-ce que yow France jaral na la. Mm-hmm. c'est important. aujourd'hui il s'agit de dire aux Sénégalais est-ce que yow Sénégal jaral na la. donc ci tendance boobu s'il y a bu amee doute c'est-à-dire que yéeg wàcc dafa war a leer ba kenn du am xel ñaar. Moi, c'est ça que je dis. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Karim Wade, oui, il mérite de diriger le pays s'il le veut, mm s'il le souhaite et s'il s'il peut le faire, mm -hmm. les Sénégalais l'auront accepté, nangu nañ ko ou pas. Mm-hmm. Mais il y a un boo xam ni li nga wax la la gëm Thierno Alassane Sall loo ko mun mënti waxal bu nu wax la dëgg rek yàlla tax je ne pense pas qu'il puisse être si léger mm-hmm. pour tëb naan diw boo ko waxee rek am na fu mu ko teg léegi nag à Karim aussi de se défendre ci Twitter nii c'est bien mais doyul la Mm-hmm. il faut davantage on l'aime beaucoup mais il mm-hmm. faut davantage mm-hmm. mais bien sûr ma man euh, je pense même que Karim Wade euh, quelque part est-ce que euh, Thierno Alassane Sall rendre ko service c'est-à-dire que règle définitivement cette question oui surtout surtout sur philosophie aux dates oui ah. ay datu dem démb ak tey la ñuy wax ah. oui démb démb tey. Eh, eh. c'est c'est bien c'est un peu avant. waaw c'est un peu avant. donc il lui a rendu euh, service malgré ah quand même ce qu'il. il l'a rendu service allez mm-hmm. euh, euh, de de deux mille vingt et un mm-hmm. donc loolu. Thierno da Karim mm-hmm. waxul ne Karim Wade excuse mais il n'a pas dit xoolal ni mu ni mu ni mu tontoo ci kii ci sur son compte X. Mm-hmm. il n'a pas dit que je ne je n'étais pas. mais il dit que merci à Thierno bon il a dit peut-être de ma. avec ironie mais merci de m'avoir rappelé que je suis inscrit sur la liste française. française oui. c'est-à-dire que les politiciens <laughs> dañoo wax day war quoi. <laughs> mais mais mais leur leur langage c'est vrai mais eh, eh, li li Pape Sané doon doon liir sànq Thierno. Mm-hmm. est-ce que yaakaar nga ni comme Karim Wade li muy wax euh, Thierno Alassane Sall. Euh, soit manipulé par amadu Ba par exemple parce que si j'ai bien su ma déggee bu baax li Pape Sané lire loolu la Karim Wade di di wax. non mais su loolu loolu Moustapha. Euh, mhm. si on se c'est-à-dire bu ñu xoolee le pédigré de de de Thierno Alassane Sall. Mhm. Mhm. xam fu mu jógee xam li ko booleeg Macky Sall xam li tax mu génn. di gouvernement. parce qu'il a refusé hein, de signer les contrats pétroliers avec le le surtout notamment le contrat avec Total. donc kooku nga xam ne le président de la le premier ministre de l'époque Mohamed Boun Abdallah Dionne n'a pas pu le mm-hmm. Mm-hmm. Total, avec tout ce que cela, cela sous-entend comme puissance, comme mm-hmm. hyperpuissance, ils n'ont pas pu le, le, le, avec leur mallette d'argent, avec leur influence, avec l'EP. Mm -hmm. pas qu'aujourd'hui, c'est Amadou Ba qui peut le manipuler. <laughs> c'est bon, de bonne guerre. quoi. Voilà, D'accord. Ouais, Alors, euh, pas ça, nous avons recours à Karim Wade, mais nous avons dit Ibrahim Diot de Ba. Euh,